ki dem rek atel euh, autour de la table euh, euh, Thierno Alassane Sall Abdou Abdou Mbow Abdoulaye Seydou Sow de l'autre côté Thierno Thierno Alassane Sall yaa ngi woon ci atel bi yaa ngi woon ci ndaje bi maanaam ci autour de la table bi ngeen bi ngeen nekkoon mm. bu ñu gisee des gens de l'APR yoo xamante ne yow ci sa bopp ak ñoom am na lu jot a jaar seen diggante de l'autre côté également gis opposition bi am na ñoo xam ne yàkkante dañ lu nekk est-ce que loolu war na la surprendre que des politiques démb peut-être ñu waxante lu ne defante lu ne après il se retrouve euh, peut-être pour dem jàpp ne loolu xëy moom mooy intérêt sénégalais yi. du benn. Ah atel alliance la woon pour la transparence des élections maanaam dama jàpp ni képp kuy bokk élection bu fekkee ni jub jubal moo la tax a jóg rek war nga d'accord ci élection yi jaar yoon loo am jël kooku Pastef da ci war a d'accord benn kii daf ci war a d'accord PDS APR ak ku mu munta doon. bu ñu demoon ba nga xam ne dafa mel ni dëkk yu yu yu démocratique yu ñuy wax yu réellement démocratique nga xam ne élection bu amee kenn du wax triche dafa am bu boobaa dañu soxla sax teg ay atel ku nekk da ngay dem rek lijjanti say këyit def sa coalition dem doon coalition électorale dafa genre comme genre FRTE yi fi jaaroon nga xam ne ñëpp mën nañ ci bokk li ci doy waar nag mooy cest que fi ma fi ma d'accord ak yow hmm. mooy démb ñu ne woon ci nguur gi dinaan tax yi baax na ñii dañu ragal rek parewuñu tey ñu ngi ci attel ñu nekkoon ci opposition bi di ne parrainage amul gars yi dañuy utiliser ministre de la justice dañu bëgg ministre de la justice bu indépendant dañu bëgg extra DG ñoom ñu ngi ci pouvoir bi ne gars yi pare wuñu loolu moo day waar ci Sénégal. Mm-hmm. dafa gaaw a loo tax ñun dañu def politique nii république des valeurs maanaam dafa am loo xam ne jomm nañ ko jomm nañu bind muy deñ kon mun nañ bañ a xaar. coalition coalition dem defi beneen intercoalition ak coalition yu mag yi fi nekk. tax ko ñu def coalition mais dinañu tànn ñu ñuy defal coalition. Hmm. coali ñun suñu coalition dafa mag de. Hmm. c'est pas parce que xam nga da ngeen jàpp ni volume. gis nañ fi élection euh, présidentielle. dafa mag bu weesoo yow Abdoul Mbaye kan non dañuy wax chiffre. dañu hmm. jógee élection présidentielle ñun dañu jël sixième am coalition yoo xam ne. topp ci ay coalition yoo xam ne ñu jël cinquième troisième raw nañu gaa mais rawee ñu loolu alors que ñoom am nañu ay trente trente partis ay partis yu rëy lu ñuy tudd <laughs> moyen yoo xam ne mot na trois fois suñu moyen quatre fois donc man dama gëm ni que valeur qualité dafa am solo aussi bu yàggee moom mooy nekkaat quantité mm-hmm. tey am na ay sénégalais yu bëri yu ñuy woo ci ay localités yu bëri dañu bëgg a ànd ak yéen donc ñun suñu coalition mu ngi tudd parce que bett bàyyi leen ma wax ko. tudd bi Sénégal kese. Sénégal maanaam Sénégal moo ñu ñor Sénégal kese la ñu jiital te sénégalais ñuy seetaan xam nañu ku mel ni man Sénégal kese laa mos a jiital. Mhm. muy assemblée muy ci gouvernement muy fu mu mënta doon. je pense président Abdoul Mbaye. Mhm. premier ministre Abdoul mbay nekk na sama premier ministre nekkoon sama kilifa ci gouvernement bi. mun naa seede ni que wax naa ko ay jataay yu dul jeex nit la boo xam ne am na rigueur am na honnêteté compétence jiital Sénégal Ibrahima Thiam bu nekk xam ne dafa bàyyi France il est dans de très grandes banques ñu fii pour jàpp ci mm-hmm. Sénégal kese moo ko ñor et y a d'autres mais mais xam nga élection aussi euh, dañuy wax ne élection bu ñu ciy dem plus l'opposition di bëri ay candidats loolu dafay favorable ci partie au pouvoir am na atum 2017 ñu ñu déggoon ñu ne ñoom seeni coalition ki nga xam ne mooy président de la république bi fi nekkoon di Macky Sall moom moo leen wax ñu taxawal ko et que même bu ñu amul député sax liñ ci bëggoon am nañu ko parce que fexe nañu ba. parti bi nga xam ne moo nekk au pouvoir ci at boobu mu fexe ba même bu dee timboo am na mais au moins am na am am na lu raw aujourd'hui bañ a àndandoo boobu nga xam ne def nga ko ci coalition yeneen yi yow it nga dem taxawal sa coalition est-ce que amul lu mu mën a yàqal bañu àndandoo de bañu hmm. nañu am nañu ñu jéem a waxtaanal xëy na dafa sottiwul benn ñàkk sotti boobu tamit mu fi nekk wax nii la demee wala nii la demee hmm. benn ñaar àndandoo tamit da nga koy tànn xanaa déggoo lu ma la wax naa ñëwaat ci benn aspect bi nga wax mais damay terminer foofu déggoo lu ma wax mooy am na ñu fi taxawaloon intercoalition wàllu yeewi ànd coalition bi ana jëriñ bu mu jural Sénégal. Hmm. bañ demee assemblée ñu may doole parti goo xam ne demoon na bay dee ñu mayaat ko doole. ban parti la mais doo bàyyi PDS. non doo jox ma damay joxe hmm. exemple lu ñu vivre. yow yaa tudd PDS ah, dama ne ñu joxe exemple parti boo xam ne. mu demaat assemblée nationale taxaw fa ànd ak parti au pouvoir mais coalition boobu bu dee dañuy wax objectivement ban njëriñ la amal sénégalais yi. Mm-hmm. ak ban njëriñ la amal démocratie Sénégal au contraire dafa bëggoon salfaañe démocratie Sénégal ñooñu tey bu ñu defee seen coalition bu rëy. Mm-hmm. li sénégalais yi war a posé wu question pourquoi ñu àndoon di xeex nekk nii ay frères lañu. par exemple frères libéraux. Mhm. amul lu ne plongé fi pays dans le dans dans le chaos pratiquement jàpp ñi tëj ñi am ay journée yoo xam ne le pays était presque au bord du précipice bañ a déggoo tey ñu ngi opposition ñu ne nañu nañu déggoo ànd ànd googu ànd naxaate la nañu waxante dëgg nañu waxante dëgg. ñun nag déggantuñu kenn ku nekk am na choix yow. yaa ma ne nga xam ne ñoo nekkoon ci conseil constitutionnel. depuis depuis euh, répété nga deux fois le PDS et deuxièmement hmm. Hmm. xam nga il faut pas noon naa ci ñëw. ñoom ñoo ñoom ñoo tontu <laughs> loolu tax ma rek avancé mais dama bëgg eh, eh, waxoon naa la am na ci boo point bu am solo naa ci ñëw. Hmm. mooy deuxièmement mooy xam nga schéma politique yi day évoluer. coalition Diomaye président dafa gagné cinquante quatre pour cent premier tour. premier ñu bëgg ñoom lu leen arrangé ñoom mooy ne système bi fi newoon moo fi nekk ba tey. lu leen lu ñu gën a daje nekk benn say. <laughs> day ne ñi ñëpp système bi la d'ailleurs waxoon nañ leen ko Thierno Sall ñii ñoo nekkoon ci ginnaaw et cetera et cetera am déet lu leen arrangé mooy mhm. ñun ñu def benn say tiire ci suñu kaw day gën a yomb typiquement ñu def fenn say ànd muy naan est le système mort là qui ñun nag da ngeen vote qui veut mm. kooku Sénégal du sax xel ànd li fi jaaroon mm. <laughs> def naa ni yéen journalistes yi sax yéen a ci war a àtte mm. ak ñoom da gannaaw ñoom ñoo toog seen conférence de presse waaw ñu ne woon PDS xam nga xar na ñaar ni que ku leen ñu leen teg seen problème yooyu mooy ki nga tudd sànq donc loolu leer na tey li li des mooy comme demee na noonu. te ñoom ñoo taxawoon assemblée dem ak accuser conseil constitutionnel. conseil constitutionnel porte plainte benn juge porte plainte xaw ma ñaar wala benn juge. Cheikh Ndiaye mais bu ñu nee justice bu bees am na dañu war a jooyanti bala ñuy toppatoo dara. Mhm. ana dossier bu gën a urgent boobu bu fekkee ni conseil constitutionnel dafa am juge yoo xam ne ba tey tuuma gën ñu teg seen ndodd. ni dañu leen jox alal bu dul jeex. ñoom ñu porte plant leeragul. faatu abdu waroo tiit ci réew moo xam ne ab juge ci juge yu gën a kawe plainte ñu teg ci tànkam kon yow Fatou Abdou boo bu buñ la tooñee nooy def. Mohamed yow buñ la tooñee nooy def. fekkee ne fu ma xam ne doon benn ma xam ne nekkatul benn dafa am ñoo xam ne bu ñu bu ñu amee problème ñu mu accéléré am ñoo xam ne bu ñu leen bëggee tëj mu gaaw. Mhm. am dossier yoo xam ne dañ ciy teg tànk depuis des mois. loolu mooy justice bu bees bu ñu doon woote. donc tey jii nii waruñu nekk fii di commenter affaire yi entre bi coalition nangam nangam bii dayam mais ban Sénégal lañu ñu jëm lan mooy problème fondamental Sénégal mais ci coalition yi Mouhamed balaa ñu cee balaa ñu cee balaa ñu cee dem. xam nga yaa ngi ne bu ñëpp àndandoowee mën nañoo ji maanaam le pouvoir mën na ne waa système bi ñu ngi ne dajaloo mais est-ce que.